malaaka yëgle na juddub yaxya janta ya erod dee buuru réewum yawut yi ab sarxalkat la woon bu ñuy wax sakariya bokk ci làngu sarxalkat yi askanoo ci abiya te soxnaam askanoo ci aarona ñu di ko wax elisabet ñoom ñaar ñépp a juboon yàlla seede te mucc ayib ni ñuy jëfe santaane yeeg ndigale yi yooni borom bi amuñu woon doom nag ndax elisabet mënul woon a am doom te it booba ñoom ñaar ñépp a dem ba màgget sakariya la làngam aaye woon muy def liggéeyu carxaleem fa kanam yàlla ba ñu tegoo bant na ko sarxalkat yi baaxoo woon moom la bant ba dal mu war a dugg biir ndéegu borom bi ngir taal fa saraxu cuuraay mbooloo mépp nga woon ca biti di julli ca waxtu saraxu cuuraay boobu ci biir loolu menn malaakam borom bi jékki feeñu sakariya ci wetu ndeyjooru saraxalukaayu cuuraay ba ba ko sakariya gisee daa jaaxle tiitaange jàpp ko malaaka ma ne ko sakariya bul tiit ndax sa ñaan nangu na elisabet sa soxna dina am doom ju góor nanga ko tudde yaxya dinga am mbégte ak bànneex te ñuy baree bég ci juddoom ndax ku màgg lay doon borom bi seede biiñ ak lenn luy màndee nag du ko naan noogu sell gi mooy dale ca biiru ndeyam solu ko ba fees niti bani israel ñu bare moo leen di waññi ci borom bi seen yàlla mooy ndaw li koy jiitu ànd ak leer ga ak xam-xam ba woon ca yonent yàlla iliyas ba wàññi xolu baay ci doomam wàññi ku dégg di ci xelum aji jub loolu yépp ngir waajal aw xeet ba mu jekk ngir borom bi sakaya nag ne malaaka mi lu may def ab takk ci loolu ba mu bir ma ndax man màgget naa te sama soxna it làq na ay fan malaaka mi ne ko man maay jibril mi taxaw fi kanam yàlla dañu ma yónni ngir ma wax ak yow yégal la bii xibaaru jàmm léegi nag dama ne gannaaw gëmuloo sama kàddu giy jot sotti dinga luu te dootuloo mën a wax ba keraa loolu di am ci biir loolu mbooloo maa ngay xaar sakariya jaaxle lool ndax yàggaayam ca biir néegu yàlla ba ba mu génne nag mënula wax ak ñoom ñu daldi xam ne am na lu ko feeñu ca néegu yàlla ba ma nga leen di liyaar mënatu la wax naka la sakariya fegal ayu caraxaleem daldi ñibbi gannaaw gi soxnaam elisabet ëmb lëlu na juróomi weer ma nga naan lii borom bee ma ko defal ci jant yi mu ma geesu ba teggil ma sama gàcce gi ci biir nit ñi jibril yëgle na juddub isa ba elisabet tolloo ci juróom benn weeram ca la yàlla yebal jibril malaaka mi dëkk bu ñuy wax nasaret te diwaanu galile ci janq bu digoo sëy ak waaju ñuy wax yusufa te bokk ci waa kër daawuda janq ba maryaama lañ koy wax malaaka ma agsi ba ca moom ne ko jàmm nga am yow mi ñu baaxe borom bi yow la àndal waxi malaaka ma nag jaaxal maryaama muy xalaat lu nuyoo boobu mën a tekki malaaka ma ne ko maryaama bul tiit ndax daje nga ak yiwu yàlla dinga ëmb ba jur doom ju góor nanga ko tudde isa ku màgg lay doon te des na ko wooye doomu aji kawe ji borom bi yàlla moo koy jagleel nguuru daawuda maamam mooy nguuru fi kaw waa kër yanqoba ba faaw te nguuram du foq mukk ci kaw loolu maryaama laaj malaaka mi ne ko nu loolu di ame te man xawma góor malaaka mi ne ko noo gu sell gi mooy wàcc si ci yow dooley aji kawe ji yiir la moo tax itam ku sell kiy juddu ci yow dees na ko wooye doomu yàlla te kat elisabet sa mbokk mi itam ëmb na doom ju góor te fekk ko màgget ki ñu doon wooye jigéen ju jaasir mu ngi nii ci juróom benn weeram ndax yàlla dara tëwu ko maryaama daldi ne maa ngi di jaamu borom bi nii nga waxe na ame noonu ci man ba loolu amee malaaka ma bàyyi ko ca moom dem maryaama seeti na elisabet ci fan yooyu la maryaama fa bu gaaw jëm diwaanu tund ya ca dëkkub yuude ba sakariya dëkke mu agsi ca kër ga nuyu elisabet naka la elisabet dégg nuyób maryaama doom jamu ëmb yëngu ca biiram elisabet daldi feese noogu sell gi mu àddu ca kaw ne yaa gën a barkeel ci jigéen ñi sa doom ji nga ëmb it barkeel na ana ku ma doon ba sama ndeyu sang di ma seet si nakal sa kàddug nuyoo tàbbi sama nopp rekk sama doom ji yëngu ci sama biir ndax mbég ndokkale yow mi gëm ne mbir yi ñu la yëgal te mu tukkee ci borom bi dina sotti maryaama woy na mbaaxu yàlla maryaama nag ne sama xol laay màggale borom bi sama noo laay bége yàlla mi may musal moo geesu bii jaamam bu tekkee di ba maasoo maas doxe fi wooye ma borom mbég mi ndee kiy borom doole moo ma defal jaloore sell nga ñeel na turam yërmandee ma ñeel ay ragalkatam maas ci kaw maas dooley loxoom la defe ay jaloore tasaare ñi jikko woo réy réylu wàccee buur yi ci seeni gàngune yëkkati baadoolo yi ñi xiif mu regal leen lu neex ñi duunle mu dàqe loxoy neen moo wallu bani israyel jaamam bàyyi ko xel yërmandeem noonee mu ko diggee woon suñuy maam ñeel ibrahima ak askanam ba faaw maryaama toog na fa elisabet lu wara tollook ñetti weer sooga ñibbi lu jëm ci juddub yaxya gannaaw gi elisabet dem ba appam mat mu mucc am doom ju góor dëkkandoom yaak bokkam yéeg noonu ko borom bi xéewale yërmandeem ñu bokk ak moom mbégte ma ba bés ba delsee ñu dikk xarfal ci xale ba bëgg ko tudde sakariya dippee ko baayam yaayam nag ne leen déet yaxya lay tudd ñu ne ko waaye kenn ci say mbokk tuddul noonu ci kaw loolu ñu liyaar baayam ngir xam nu mu bëgg ñu tudde xale bi sakariya laaj àlluwa ñu jox ko ko mu bind ci ne yaxya mooy turam ñépp waaru ca saasa gémmiñ nga ubbiku làmmiñ wa nangu muy wax daldi sant yàlla ba loolu amee tiitaange dikkal mbooleem ña leen séq mbir moomu mépp nag doon waxtaan ci diwaanu tundi yuude gépp ña ca dégg ñépp daldi bàyyi xel ci mbir ma te naan lu xale bi nara doon ëllëg ngir manoore borom bee àndoon ak moom sakariya sant na yàlla ci kaw loolu sakariya baayu yaxya feese noogu sell gi daldi tàmbalee biral kàddug wax yu ne cant ñeel na borom bi yàllay israyil moo set ci ñoñam ba jot leen moo feeñal musalkat bu monorewu fi biir kër daawuda jaamam ba noonee mu ko waxe woon yonentam yu sell ya woon jottali moo ñu musal ci suñuy noon jëlañu ci suñu loxoy mboolem mbañeel moo jëfe yërmande ñeel suñuy maam te bàyyi xel kóllëreem gu sell ak ngiñ la mu giñaloon suñu maam ibrahima ne moo ñuy may ñu mucce ci loxoy noon ba man koo jaamoo xel mu dal ca biir sell nga ak njub ci kanamam suñu giirug dund ngóor si nag yow yonentu aji kawe ji lees lay woowe nde yaay dox jiitu sang bi xalal kow yoonam ngir yégal ñoñam ak njot guy topp seen njégalug bàkkaar sunu yàlla yaatu yërmande moo ñu fenkal ab jant di niital ñi tooge biir lëndëm ak takkandeeru dee di ñu gindi teg ñu ci yoonu jàmm ngóor sa nag di màgg xel ma di yokku mu dëkk ca màndiŋ ma ba bés ba mu feeñoo bani israyil isa juddu na ca betlehem jant yooyu ndigal moo tukkee woon ci buur bu mag bu ñuy wax sesaar auguste mu ne na ñépp bindu ji ca limeef ya mbindu mooma mooy mu njëkk ma yemook ba kirinus dee boroom réewum siri ci kaw loolu ñépp bindu ji ku nekk ca sa dëkku cosaan ku ñuy wax yuusufa itam jóge nasaret ca diwaanu galile jëm ca diwaanu yuude ca betlehem dëkk ba daawuda cosaanoo ndax ci waa kër daawuda la askanam bokk maryaama mi digook moom sëy la àndal bindu ji te fekk mu ëmb naka lañu dal betleyem waxtu mu cëm agsi mu am doom ju góor mu dib taawam mu laxas ko tëral ko ca gàmbug jur ga ndax ñàkk fu ñu xaj ca néegu gan ba malaaka feeñu na ay sàmm booba ay sàmm nga ca gox boobee di fanaane watu seenu jur am malaakam borom bi jékki feeñu leen leeru borom bi melax wër leen ñu tiit tiitaange lu rëy malaaka mi ne leen bu leen tiit ndax kat ma leen indil xibaaru jàmm bu doon mbég mu rëy ñeel askan wépp bésub tey jii ca dëkku daawuda juddule ngeen ab musalkat te mooy almasi di sang bi li ngeen ciy def ab takk moo di dingeen gis liir bu ñu laxas tëral ko ci gàmbug jur ca saasa gàngooru asamaan gu mag ànd ak malaaka mi di sàbbal yàlla ne daraja ñeel na yàlla fa asamaan sa gën a kawe jàmm ci kaw suuf ñeel ñi yàlla baaxe ba malaaka ya bàyyi ko ca sàmm sa dellu asamaan ñuy wax ca seen biir naan nañu dem boog betlehem seeti la fa xew te borom bi xamal ñu ko ñu gaaw dem ba foofa daldi gis maryaama ak yusufa ak liir ba tëdd ca gàmbug jur ga naka lañu leen gis daldi leen xamal lañu leen wax ca mbirum xale ba mbooleem ña dégg la leen sàmm sa wax nag waaru lool terewul maryaama moom bàyyi woon na xel ci mbir moomu mépp di ko xalaat ci xolam ba loolu amee sàmm sa dellu di sàbbal ak sant yàlla ci mbooleem lañu dégg gis ko te lépp amee noonee ñu leen ko waxe woon yóbbu nañu isaa ci kër yàlla ga ca yerusalem ba juróom ñetti fani xale bi mate ñu xarafal ko tudde ko isaa na ko malaaka ma tudde woon balaa moo sosu gannaaw ba seen fani setlu mate ni ko yoonu musaa laaje ñu yóbbu xale bi yerusalem ngir teewal ko fi kanam borom bi noonee ñu ko binde ci yoonu borom bi ne bépp taaw bu góor dees na ko tudde séddoo bu sell ñeel borom bi ñu yóbbaale sarax bi ci war ni ko yoonu borom bi santaane ñaari pitaxu àll mbaa ñaari xëti yu ndaw simeon sàbbal na yàlla amoon na nag ca yerusalem ku ñuy wax simeon ku juboon ragal yàlla di séentu jamono ji nekkinu bani israel di amee ak tan te noogu sell gi àndoon ak moom ndey nag tukkee ci noogu sell gi xamal ko ne ko du dee mukk te gisul almasi bu borom bi ci kaw loolu mu dem ba ca biir kër yàlla ga ci doole noogu sell gi gannaaw loolu waajuri isaa indi isaa ngir defal ko li aada yoon wi laaj simeon itam jël xale bi leewu ko daldi sàbbal yàlla ne léegi nag buur yàlla yiwil sab jaam mu dem ak jàmm noonee nga ko waxe woon desaay gët tegu na ci mucc gi nga dogal waajal ko fi kanam askan yépp mu dig leer ñeel jàmbur ñi sagal israel sa ñoñ baay bi ak ndey ji nag yéemu ci kàddu yooyu ñuy wax ci xale bi ba loolu amee simeon ñaanal leen ba noppi ne ndeyam maryaama dama ne kii lañu yebal ngir sànkute ñu bare mbaa seenuk neqliku ci digg israel ngir itam mu doon firnde ju ñuy gàntal yow nag sab xol la aw naqar gu mel ni saamaar di xar ba ñu bare la seen xalaati biir xol di feeñ aana sant na yàlla jigéen ci ñuy wax aana ab yonent la woon ca yerusalem di doomu fenuwel mi askanoo ci giirug aseer mag la woon lool ba muy janq la séy nekk ak jëkkëram juróom ñaari at jëkkër ja faatu mu toog séyatul ba boobu mu amee juróom ñetti fukki at ak ñeent daawul jóge ca kër yàlla ga koor ak julli la daan jaamoo guddi ak bëccëg ana nag dikk moom it ca waxtu woowa daldi delloo yàlla njukkal ci kaw loolu muy waxtaane mbirum xale bi ak mbooleem ña doon séentu bisu gorelu yerusalem ci kaw loolu ñu matal mbooleem lu yoonu borom bi laaj doora dellu nasaret seen dëkk ba ci diiwaanu galile xale bi nag di màgg di dëgër feese am xel te yiwu yàlla ànd ak moom